am borom a koy fayul boppam loolee le Sud xëyee ci bésub tey bi journal Sud ni fang ci xëtam bu njëkk Abdou Mbow président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar mi déposé ci table président assemblée nationale ab motion de censure la mu si jublu nag mooy ne daaneel gouvernement bu Ousmane Sonko fexe kon ba daal koy jëlee ci bopp primature gëmu nekk waa Benno Bokk Yaakaar gisee nag ni doxalin bi nguur gi am rawatina doxalin bu Ousmane Sonko am mooy wañee ak ñàkk respecté élection yi ci réew mi lii moo tax ko candidat ji tontu jéego Ousmane Sonko teg jëm ci ñoom te wormaalu leen fulaalu leen lii nag moo tax ba journal Sud Quotidien ni ci atum 1960 ba tey jii ñii di waa Benno Bokk Yaakaar yëkkati nañu coow loo xam ni benn yoon képp la mës a jàll ci assemblée nationale laas daal di koy feelu ni ko usmaan Sonko ak gouvernement bi ñoo ngi toog ci chaise éjectable Massaly ci biir journal bi ni dañoo yaakaar ni kon tontu bi mooy bi gën a saf bi gën a jaad bi ñu mën a tontu Ousmane Sonko gannaaw bu ñu xoolee doxalinam moom ak président Bassirou Diomaye Faye jëmee ci assemblée nationale Mamadou Massali ci biir journal L'As ni tontu bi képp mooy bi ñu doon xaar ngir nag mën a jàkkaarloo ak Ousmane Sonko defante ak moom lu ñuy gën a xuus ci biir journal yi di gis ni kon coow loola moom moo lëmbe ëttu yéenekaay yi Le Quotidien moom baat yi la xëyee ci bésub tey bi mortal combat maanaam ku la ko rokkos nga ndobin ko ko loolee ne mooy dox diggante ñii di nguur ci assemblée nationale li lépp nag le quotidien yi la ko sabab mooy jéego bi président de la république bi jël ngir rek kon dindi fi a HCCT ak conseil économique social et environnemental li moo tax ba journal bi jàpp ni kon waa benn bokk yaakaar dañoo gis ni gannaaw ba nguur gi ak seen ay nit ñoom ñoo sokke pàcc bu njëkk ci xeex bi kon jaaju na ñu daal kon soobu ci deuxième round tribune yéen kaay daa jineen feelu itam ci coow loolu le ne Ousmane Sonko ak gouvernement ñoo ngi toog ci chaise éjectable aljuma ji moo nar a bu gën a tar ci moom ak gouvernement wum le quotidien nag ni ca Chine gëmu ne moom président Bassirou Diomaye fay ne jot na dogal bi te itam dina xam ban taxawaay lay am bu ñibbisee ci réewum Sénégal gi bés bi le jour moom feelu leen ni assemblée nationale bi salfaañoo na ba noppi ndax fu mu toll nii mbooleem seen leader ya fa nekk ku ci nekk yaa ngi jëm a xëcc mbàjj bi sa ngir kon mën a gën a jëfandikoo coow li xew diggante nguur gi ak kuje politique gi bés bi le jour ni coow li lu muy bëri bëri lu ñu yëkkati kàddu jëmale ko ci ay motion de censure ak ni mel am na ay leader politique yu nekk ci suuf di manœuvrer ndax nag boo xoolee bu baax a baax ñiy fare ak Macky Sall ñoo ngi lëngoo ak labat ñi di waa Idrissa Seck ak libéraux yi ngir taxawal kon kuréel gu bees ci waxtu woowu ba léegi Amadou Ba nekkoon deuxième ci élection présidentielle yi moom itam lal na ay ndëgg sërëxam ngir fexeen di kon ba dugal ci parteem bu ñu waaj a taxawal ay ñitt yu bokk ca PS AFP ak yeneen i force politique source a moom nee na nag ajuma ji ñu mooy ajuma de tous les dangers pour Ousmane Sonko ak gouvernement am ma foofee la corno bokkum yëkkatee kàddoom ni taxawaay bi waa benn bokk yaakaar am mooy taxawaay bi war mooy taxawaay bi ñu doon xaar ci ñoom ndax nag ñoom député yi danoo gis ni nguur gi rawatina premier ministre bi respecté wu leen weegu leen joxu leen cër te loolee waruta demee noonu loola kan moo tax ba gaa yi wax seeni i mbagg ni nañu delloo buum ca boy booy ga ndax itam ñoom député yi mat nañu mat goo xam ne ku leen ko rokkos ñu ndobin la ko l'observateur moom xëy ni coow li muy bëri bëri Bassirou Diomaye Faye am na ay mbir yu muy nëbb askanu Sénégal yooyee mbir bawa ko ci jokkalante ak waxtaan bi doxoon diggante moom président de la république ak juróom-ñaari sages yu nekk ca conseil constitutionnel lan la waxante ak juróom-ñaari sages le jëm ci tasaare assemblée nationale bi ak itam woote waat élection législative yu bees loolee lépp journal bi di l'observateur mu ngi ciy indi ay bu nekkee nag ni coowal assemblée nationale ak wàllub motion de censure mooy li gën a fës Bougane Gueye Dany itam sa bopp bi saf na sàpp ci yi Bougane Gueye Dany kon yëkkati kàddoom ni fatwa dóor kii di Cheikh Oumar Diagne ngir kon dakkal ñàkk ma ak ñàkk cër gi mu dëkkee jëmale ko ci tarixa yi Bougane Gueye Dany jàpp nag ni kon dañoo war a moytandiku bàyyi ba jaan wi romb nu ñu dóor ci watat wi moom njiital gëm sa bopp ni Cheikh Oumar Diagne des ko war a kar léegi foqati li mu yor tekki ay ndombal tànkam ngir muccal diine ak këru diine yi ci réewum Sénégal gi meneenum coow meneenum mbir mu itteel réewum Sénégal mooy ONAS Gate jëriñ ji ñu dénk wàllu justice bi ci réew mi di Oumar Diagne ne jox na ngir nag mu gëstu yët mbët bu baax a baax a coolo la ngir fexeenti kon ba nu xam dëgg gi fan la féete ndax lu cool yi bëri bëri bëri koppari Sénégal alalu Sénégal la ñuy waxtaanee ci moomu la mbir nu daanelee yéene kaay yi tey ji ak l'observateur mi xëyoon dem tribunal bu Ndakaaru Njaay la mu ñu fa jëlal nag mooy benn professeur bu mathématique doon jàngale ay cours particulier ñaari xale yu jigéen la mu mujjee ak ñoom nag mooy ci wetu a plus b égal z daa mujjee kon futti ñaari gone jigéen ya di siim seen mari ngàññ euh, ñi ngi jégalu